salaamaaleykum amateur de foot yi nuyu nañ leen ko ci nekk seen ab tur ak seen ab sant xibaar tey jii 9 août 2024 ci wàllub tàggat yaram mu ngi di leen wax ci kan kookee ñu naan ko Dani moom mi nga xam ne c'est officiel foofee ja Barça waaye kàddu yu mu jot a génnee moom lañ leen di tegal ci table benn par benn balaa dara képp ko xam ne nii abonné ko sunu seen YouTube bi noo bu ko tàyyi bësal bouton s'abonner bi ngay liker di commenter di partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def di leen jox. xibaar matin euh, midi soir kon nag bu leen koy tàyyi s'il vous plaît ah, dee leen di like bu baax a baax ñi nga xam ne nag ñu ngi may doog a suivre te abonné nag dee leen abonné ah, ñu ñëw ci transfert wax ci kan Pedro Neto à Chelsea c'est ah, Chelsea daal jënd na kooke di Pedro Neto mu ngi noonee da koy jënd bokk mu ngi ci yoon bi signature contrat visite médicale signature contrat képp kundong moo des ci dossier bi ñu officialisé ko foofee ca club Chelsea bu ñoom Nicolas Jackson mu ngi Prime League fa la ñuy des seen équipe nationale bi nag lii Carsley euh, nag devient le nouveau sélectionneur intérim de l' Angleterre pour le moment mooy doon euh, sélectionneur u Angleterre euh, remplace kooku di ba Kelbak Angleterre di trouver sélectionneur boo xam ne dina mën a doon officiel foofee ca mën naa ni Angleterre mu ngi noonee netto mi ñu leen annoncé sànq prix bi mu ngi war a tolloog 60 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus pour Chelsea war koo signé Chelsea nar naa bëri Chelsea nar naa bëri oh là ci ci kenn xamul lii lan mu ngi noonee kenn kenn kenn xamul lii lan la c'est trop quand même plus de 46 jusqu'à 47 jours bu ñu jëndee kii day doon plus de 47 jours et loolu loolu Chelsea nan la ko mën a gérer man coach bu Chelsea bu bees bi moom laa yërëm plus de 47 jours yoo xam ne dañ leen officialiser foofu ci Chelsea mais si c'est trop c'est trop vraiment c'est trop mu ngi noonu gars yi waaye di leen leeral que ni Inter bi démb moom moo dóor Toronto 4 buts à 3 gis nañ ne Jordi Alba wane na boppam bu baax a baax en jouru euh, Barça boobee waaye di leen leeral que ni Eric wax na ci euh, gone yooyu nga xam ne nag mooy kan kookee ñu naan ko Martinez ak Garnacho ñoomee ngan na xam ne nag dañ leen a tatagal ba ñu ñëwee jël lii di ko pa américa bi ñëw foofee ca Manchester United Lisandro Martinez ak Garnacho euh, recevant des félicitations de la part de Manchester United pour leur victoire à la Copa América cet été mu ngi noonee ñoom nag ñu sargal leen tatagal leen euh, teg leen ci condition yu normal Eric Ten nag génn nee na je veux faire avancer Licha Martinez et Garnacho parce que euh, parce qu'à Manchester United, nous avons besoin des joueurs ayant cette mentalité gagnante et ils savent euh, comment gagner mu ngi noonee nee na nag bëgg na euh, avancer la ñuy kookee di Martinez ak Garnacho nag euh, Manchester United dafa bëgg joueurs yoo xam ne nii dañuy am esprit gagnant comme ñoom ñaar ñu ko amee nag tàmm nañ di gagné ay trophée muy coupe du monde ba ci Copa América bi nee na loolu esprit argentin américain yi nekk seen bopp moom la bëgg instauré foofee ca Manchester United réussite mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu officiel Matteo Retegui est nouveau joueur de l'Atalanta moomee nag dem na rejoindre Atalanta euh, dans les euh, coffres de Genoa de 22 millions d'euros euh, de 3 millions de bonus foofu fay dugg nag Genoa moo ko jaay kooku di Atalanta lu tolloo daal 25 millions d'euros la prix bi lépp lépp lépp lépp l'attaquant de a signé un contrat jusqu'en 2020 mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu ñu ngi xaar na la nar a mujjee foofee entre West Ham et l'OGC Nice pour Jean-Claire Todibo dafa war a dem signé foofee les Hammers ont doublé la Juventus de Turin dans le dossier euh, du défenseur français mu ngi doone la visite médicale pourrait avoir lieu dès ce dès ce mercredi dès ce vendredi mu ngi doone kooke di euh, Todibo moom nag am na yaakaar que ni vendredi bi nar naa def visite médicale bu ko réussir signé foofee ca euh, West nga xam ne nag dafa doublé Juventus de Turin ci contrat bi ak salaire beeg lépp daanaka mu ngi doone les choses vont bien entre toi et Sancho loolu kan lañ ko laaj muy Eric Ten Hag coach Manchester United Ten Hag tontu leen les choses ont toujours été bonnes nee na mbir yi dafa yàgg neex ci ñoom ñaar yàgg a baax ci ñoom ñaar bokk mu ngi noonu il faut regarder les choses de manière professionnelle nag dañoo war a xool mbir ci anime boo xam ne ni bu professionnel bu dëggu bu normal waaye ne maayetuñ foofu. j'ai pris des décisions dans l'intérêt de l'équipe dama jël ay décisions yoo xam ne ngir jëriñu équipe bi la mu ngi noonu ne nous regardons nous regardons vers l'avant maintenant ce n'est plus un sujet nee na nag dañuy xool li nag jëm suñu kanam lii doonatul ak euh, mën naa ne sujet yu ñu war a wax mu ngi noonu ne lu weesu la weesu na ngeen xamee ko noonu Thomas Müller en cheval en or mu ngi noone ne moomee nag mu ngi def loolee di mën naa ni. Euh, fas euh, yi daal ñoom lay euh, yore di di di di ci di ci di ci di ci di ci compétir daal équitation on peut dire équitation mu ngi noonu le cavalier euh, allemand de Christian Kukuk et son cheval Scheckter ont décroché la médaille d'or en saut d'obstacle individuel au Paris mu ngi noonu kookee nag mën naa ni Thomas Müller nag et sa femme Lisa Ferve éleveur éleveur éleveur de chevaux sont également copropriétaires de Cheikh Cher ñoom naar rek mën naa ni daanaka ñoo moom fas boobee nga xam ne moo jël euh, médaille d'or boobee ci jeu olympique bi ci loolee di saut d'obstacle équitation boobee ngeen gis noonu ne ngeen xamee ko noonu kon nag moomee yamul rekk ci football bi mu ngi ci yeneen discipline yoo xam ne mu ngi ci investir Ilkay gan nag wax na ci kan Arda Güler nee na bien Arda Güler c'est un garçon très caractère matériel. J'espère euh, la continuera à progresser. Il est déjà dans jeu grand club comme le Real Madrid. nu jouerons l'un contre l'autre et nous sommes très compétitifs. fa na jour bu ko neex la jour bu am fula la waaye bu mën la muy def la nee na nag gëm na ne dina am réussite continuer ci yoon bi mu nekkee noonu nag mu ngi ci club bu mag di Real Madrid te it ñoom dinañ jàmmarloo di football ay match yi match kooke ñu naan ko mën naa ni. Euh, Arda Güler ak Koke ñu naan ko mën naa ni le jour boobee ñu naan ko Gundogan Arsenal continue de travailler sur un accord pour signer Kane Mikel Merino en provenance de la Real Sociedad pour plus de vingt cinq millions d'euros les termes personnels sont déjà mën naa ni convenus Arsenal nag mu ci yoonu mën naa ni euh, conclure accord ak Koke ñu naan ko Merino ak Real Sociedad ngir mën a jënd gone googee ci vingt cinq millions d'euros euh, termes personnels yi nag euh, réussir nañ ko muy Koke ñu naan ko Merino ak ay kàddu ñu ngi xaar la suite ni bi dina la demee ak na lak naka la lépp lu ci mënti am nañ leen ko jox ci njekk ak teranga Liverpool s'est renseigné euh, sur Bruno euh, Guimaraes mi nekk foofee ca Newcastle est euh, proche du joueur n'ont pas exclu une possibilité une possibilité un possible suspense en fin de mercato malgré son bonheur exprimé à Newcastle moomee nag entourage am mën naa ni dindiwuñu ñu mu dem foofee ca Liverpool lu ne mën naa nekk malgré mbégte gi mu am ba toog foofee ca Newcastle Manchester City est vu, euh, est vu comme euh, l'enchérisseur le plus probable, estimant euh, Guimarães en environ 80 euh, millions d'euros Manchester City aussi mu ngi ci course boobee mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu te it pare na pour teg ci xaalis weextal ngir fuqati ko ki nga xam ne nag Barça teg na ci xaalis weextal ba fuqati ko muy kan kookee di Dani Olmo l'Espagnol bi toj Euro 2024 doon meilleur buteur toj Leipzig sonaloon waa Bayern loolee moomee nag jamono ji dem na rejoindre Hansi Flick ak Barça mu ngi noonee club espagnol bi nga xam ne fa lañ ko formé ca Masia bi mu wane fa fulla ak fayda dem découvrir yeneen championnat yeneen équipe yeneen mën naa ni talent ngir mën a am temps de jeu gagner expérience ba mu expérience nag baasaane ku ñëwaatal fa nga dëkk fa nga xam fa nga xam ne nag fa nga soqeekoo ñu ànd liggéey euh, jëmee ca kanam a kanam mu ngi doone actuellement euh, officiel joueur Barça boobee di Olmo ngi doone 6 ans euh, ngeen xamee ko noonu mu doon clause vibratoire boo xam dina dem ba 500 millions d'euros jamono ji moom la ko Barça di yóbbu kooku di Olmo di takk numéro 20 kon nag les Catalans toppal nañ leen dossier ba am réussite mu ngi doone ñu leen xaar ci commentaire yan kàddu ngeen ñuy amal ngeen ko ñu ko képp koo xam ne nag abonné goo suñu chaîne YouTube bu ko taay bësal bouton s'abonner bi ngay liker di commenter di partager loolu ngir ñu mën a soutenir bu baax a baax ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous jaa ngeen